xam sa tabian xam sa biddiw xam sa rawaxan xam sa sarax rab ak sa sarax rawaxan xam li nga xamante ne boo ko defee nekk ci jàmm boo faw te doo nekk ci benn gàllankoor ak i jafe-jafe boo ñàkkoon kaaraange nga am kaaraange boo xamante ni moo lay suutal ngir di dimbali ba nit mënut a defante lu egsi ci yow tamit lépp loolu nit di defante tamit man nga ko cee teg sa bët loolu listixaar gu leeral leen ci nga ko mën a amee kon ñu ñëw ci table bi leeral leen li nga xamante ni moom la leen bëgg a jàng tey eh, tey li leen indi mooy képp koo xamante ne da nga am aaju ajo ji nag lu mu rëy rëy rëy rëy donte da amoon aaju yi cinq cent mille war nga am aaju yi un million ñaan gii soo tegalee ñetti fan def ko suñu borom daal la fajal sa aaju jooju ci balaa mat une semaine allah nii rek la waaye aaju lu mu rëy rëy dama ko tënk ci wax cinq cent mille un million ndax li ëpp ci soxla nit ñi ci wàllu xaalis la jëm. waaye dama ko tënk noonu rek aji lu mu rëy rëy ak lu mën a doon bàyyil defal ñetti fan ginnaaw gee nga julli def ci ñaan ji di soogu tëdd def ko ñetti fan nga xool incha allah dootoo demati ci kenn di ko wax sa soxla wala demati fenn dafa ñaan wala demati fenn dafa jéem a eh, def lu leneen ak leneen xanaa kay li nga mënul sa bopp tamit li saxaar def la waaye wàllu ñaan aaju moom mën na ko def sa bopp dangay ngay eh, werd astaghfirullah soixante-dix fois julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cent cent téeméer nga def laa ilaha illallah quinze mille cent soixante treize def laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin trois cent treize boo paree nga julli ci yonent bi allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima cent trente-deux boo paree lii may ñaan gi moo koy tëj allahumma inni abduka al-faqir nii nga koy toppoo ba ñaan gi jeex moom moo koy tëj incha allah su ko defee lii moom benn yoon rek nga koy wax su ko defee suñu borom dana faj sa aaju jooju ci diirum ñetti fan képp koo xamante ni daal daa nga dem ci sëriñ bi ñaan la daawoo gis wala lu man a doon fexe la jàpp lii sax ci la ngay saafara suñu borom dina saafara ci diirum gàtt jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh